soxna karima mbàkke na mbàkke balaag maaram ay sak sadio maam jaaro bi somi boroxaan maam ta sali mi ci deq la maama sawalo mi ci naawel yal na nga fi yàgg te wér yal na la sa barka waajur yëpp dal yow bala isa ko bëgg-bëgg na la dama laa jox loxo léegi toogoon fële ca sees ba nga ne ma bala noo dem nga baaxental na nga daan def tubaar tubaarkalla su ma baaxantalul gorewuma Seydina Mohamed nga bëgg ma tàggal la ko tubaarkalla sa maam yi baax ya ba nga nga bëgg ma tàggal ko yal na la barkab Serigne Touba dal yal na la barkab Sëñ Basiru dal yal na la barkab maam Jaara dal loo man ren yal na nga man déwén lu ko ëpp Mahamadu moomu nga bëgg ma tàggal ko nag lu yàlla bind moo tax Mahamadu lan ko wooyee Muhammadu Abdallahi Abdallahi Abdul Muttalib Abdul Muttalib Aajim Aajim Abdal Manaaf Abdal Kilaab Murata Kaab Luwe Xaalifil Malik nadar kanaana ta Xusay mata mudire kata Ilias Nijar mat adnaana yal na ko siyaar lu bari lool sa xarit boobu yal na ko siyaar lu bari lool sa maam jooju yal na ko siyaar lu bari lool ballang maanom ay sak sadio maam jaaro bu sama ca boroxaar moom la sa maam Serigne Touba ni woon way naka laa laaxul xaraajim jikko yooyee mu doon wax ca moom na nga ne ci yow mii rek balay suburi maam Mbacke maanom Seydina Mohamed ba nu koy laaj ca gëm-gàmb jàmb nañu koy at yàlla fal ko nag lu mu song daan ko noonu yi soog a tuub looloo waral jaar wàccug yonantu bi ci àddina ñëpp jóg na saba aras ak ak kursi ak malaykatu ak firdaw si ñëpp xa li ñu jaamoo dërëm bii nanu ko jaamoo yàlla mu fay nu gërëm ni muy bénéfice ñu jàmb iblis da yokk bàkkaar te bàmmeel soriwul seydina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo gàddaay woon màkka dem medina kër abdalaay baayam lañu ko noonoo mu ñibbi medina kër ndeyam fala wootee fa tabarakallaa fala fala faloo fala ñu ko gëmee ñu ne ah waaw ndax moom li ñu mooy ndax dëgg la ci moom na doxloo garab gi ñun sang bi doxlool garab gi mu doxloo garab gi ñun ko wax loolu mbatt mi mu wax loolu mbatt ñu bal koo mën a nga gëm nga def weer yi di benn weer rek def ko ñaar mu xar weer ñaar Seydina Mohamed loolee ko caroon yal na la car car koo am ak ku la yaakaar yal na nu yàlla boole fii ci àddina boole nu àllaaxira dama ni sa borom kër bii nag faal Sidi yal Sidi Diop yal na ko yàlla bàyyi yow keroog ba ma waxee li ba pare dama ci teg ni ko la la joon ngóole la tere sa maam saaxewar soxna may ma xure jabala ñaan aminata saaxewar faatma cubu mooy mbokkum gaynde faatma waaw mooy mbokkum gaynde faatma barke Serigne Fallou soxna faatma cubu rek ay seen maam yal na la yàlla bàyyi ak moom yal na ngeen sokkaloo ni asamaan sokkaloo ak suuf yal na yàlla ak sa barke maam dugal sa loxoom ci sa digganteek moom lu ko nar a yàq yal na ko yàlla yàq maam jaaraa ngi lay sant maam jaaraa ngi lay gërëm mbooloo mi ci ginnaaw yow yaa nu bëgg gis nga nag soxna Karim fas yëpp dina da waaye rocce da ci man soo sañoon at mu jot ñu fekk la njaarim nga teral nu soo sañoon saa yooyu def safar bi ñu fekk si la yow soo sañoon foo geesu gis nu ñu ni sun sañoon fu nu geesu gis la balay sa buri maam Mbàkke maaram am ko balla ak maa bëgg faal ku ko ci waxaat di nga fekkee déwén maa bëgg faal ku ko ci waxoon di nga maa bëgg faal ku ko ci waxaat di nga fekkee déwén waaye ballak maaram ay sang maam Sadio maam Jaara Buso kuy sa maam Serigne Basiru mooy sa maam tey xalifa mooy sa maam Serigne Mbàkke Mbàkke Balla waaw soxna si ñu ne ñoo bëgg faal nañ bëgg fàllu ñoo bëgg fàllu ñun ñëpp ba ci góobe mbokk <laughs> ñoo bëgg fàllude loolu nga tëjee de moom la ñuy tàmbalee waaw ndax sëñ fàllu de waaw dañoo won lépp sëñ fàllu de moo ñu ne li ñu am kenn amu ko ku am lu kenn amul nag daanaka waroo sab yóotu waroo yóotu sax ndax maanaam li nga war a am lépp mënatu mënoo koo jote loxo xam nga yóotu wax di wax waxi wolof la dangay ngay loo mën a jot waaye li sëñ bi am romb na yóotu te loolu sëñ Fallou ñu ko jàngal liñ am kenn amu ko waaw yàlla nañu ko yàlla fayal waaw ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax tàmbalee ziyaar bi nag ci yéen ñii jóge ndakaaru ngeen xam ni kóllëre gi dafa yàgg ndax maa ngi fàttaliku man de yaakaar naa màggal gi ma njëkk a màggal ci bâtiment bi yaakaar naa bàyyi kañ gi ñëwoon na fa nañ ko ñaanal yàlla yokki leeram mu dajeek Serigne Touba mi mu doon liggéeyal te lii sëñ Cheikh Bintu mii nekkoon maanaam nekk xalifa sama kóllëre ga sëñ ab Ablaye wax fii tey di gayndeg baayam yow soxna jaara yi nekk nga gayndeg sa waajur wa ndax bu sa waajur nekkee ci lu baax di ko dox ba jóge fi nga téye ko di ko continuer dox kóllëre ya nga téye ko liggéey ba nga téye ko doxin wa ñëpp di ko gis dañ laa war a sant xam ne yow gaynde ga wax dëgg yàlla ni kee waxe ne noonu la toppe baayam di sant baayam yow war ngaa sant sa waajur wa ndax nii nga doxe moom la taalibay doxe ku sa baay say maam sa ñëpp nekkoon ci lu baax buñ fi jógee da ngaa war a continuer ci lu baax ñun ñii ñëpp ñu fas yéene ko tam bëgg a nekk ci lu baax kon soxna si nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm di leen xamal ne kóllëre gi tàmbaliwul tey kóllëre gi dafa yàgg te man dama leen cee fekk wax dëgg yàlla dama leen a fekk ngeen di màggal ma ñëw ànd ak yéen màggal googu maam Cheikh Ibra nag a doxe noonu lu mu dugg da koy ful dañu leen a fekkoon ngeen di màggal waaw ñu ñëw ànd ci indi ci nag mbirum maam Cheikh Ibra Fall baatinu maam Cheikh Ibra Fall li ñu naa kuuram gi fu mu ko dóor mu mokk kuurug maam Cheikh gi la ci dóor mu mokk dañ koo ànd nañ ko ànd ba àjjana waaw waaw buñ jógee ci loolu yéen nit lañuy ñuy sant ci seenu tur ñëpp ñi nga xam ni dañ leen cee fekk si muy ñun waa njaareem waa njaareem waa kër Cheikh Ibra ñëpp a ngi fi romb na kër Cheikh Ibra léegi parce que maa ngi dégg annonce yi ba nit ñi annoncé màggal gi waxatuñu rek Mérina Fall waxuñu rek kër Cheikh Ibra Fall dañ ne njaareem gépp bi ñuy wax fii tey en direk la nekkoon ci rajo Njaareem di Moubarak FM ak yeneen rajo kon waa Njaareem gépp ñëw nañ yéen nag ay sant waa Njaareem ndax yéen a ko tàmbali waa Njaareem fekk si leen fi ànd koog yéen waaw kon waa Njaareem ak ñeneen ñi jóge feneen ndax du waa Njaareem lekk rek waa Ndakaaru ñëw nañ fi waa Mbawoor gama fekk baax ñëw nañ fi ñu ñëw fekk si fi waa Poroxaan ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ku lim juum kon yéen ñooñu ñépp ñi ngi leen di sant te ñi leen di sant mooy ñi ko tàmbali woon ba fi dara nekkul di ko dox ba tey lii nekk fi waaw ñi ngi leen di sant di leen gërëm ci turu soxna si waaye ñi ngi leen di sant di leen gërëm ci daayira ci turu daayira soxna jaara bi jóge ndakaaru ñëw fi waaw loolu dafa mënul woon a ñàkk ci jataay bii tey man nag damay sant yàlla di leen sant ndax boo bëggee def lu baax nit ñi fekk la ci ànd koog yow daanaka yow yaa war a sant nit ñi parce que nit ñooñu ñoo lay jàppale nit ñi duñ la woo ci puukare duñ la woo ci leneen jayuñu la kon liñu lay woo mooy liy dëgg te kuy woo nit ci liggéeyub sëñ Touba kuy woo nit ci màggal gu mel nii kooku sa sa sa njariñ la bëgg kon kooku da ko war a sant yéen ñi ñëw fii ànd ak ñun màggal gii di bisub soxna jaara te bisub soxna jaara gii ñu di ko defee fii ci poroxaan muy lu rëy ndax poroxaan nag nit ñi dañ naan barabu ñaanukaay la rekk waaye romb na lool de barab boo xam ni sëñ Tuubaa ci boppam moo ne boo fa toogee boo ma fa fekkul man dinaa la fa fekk kon kuy wët sëñ Tuubaa war ngaa ñëw fii poroxaan waaw ñun de wax dëgg yàlla biñ ko tàmbalee ba léegi ak yokku lañ ci gis kon bo kep ku ñuy wax dañ la naan japp ci te bañ ci jima yox yoxal dara japp ci lo ci man nga def ko ci japp ci te lo bëgg ngafos fos nga fos ko ci waaw ndax sëñ Touba na lepp Touba man na lepp buma commencé wax ci sëñ Touba ak mam Cheikh rafal sa damay dal di saaraan waye nak comme dañ ma sant lo ma sant ci turu soxna ci sant sama tour sant leen ñeen ñepp sant képp ku ciy sonn sant tuut tànk yi ndax gone kenn du ko wax gone kenn du ko nekk ci yoon li ñuy damay génn tey ci waañ wi gis kenn ku yorub laaj di ko xolli ma ne ko baa xam nga ni laaj bi ngay xolli sa mën nga cee jële sa njariñu àdduna ak àllaaxira waaw ndax mbir mi du ci ay alal ju bari joo ciy xëpp de mbir mi du ci ab xaalis boo ciy joxe de mbir mi ci pëstéef la ak taalibe mooy pëstéef séddaleb yàlla naga demee noonu ñun de waxuñu ne dañoo ris de waaye ñeewuñu milliardaire de am na ku ñëw tey fii ne ma milliard bi nga ma diggoon dama cee jotagul mu fekk surtout maam Cheikh Ibra toog foofu ci kaw ma ne ko demal nuyu kooku koo koy séddale milliards yi ñun liñ am romb nay milliards waaw sëñ Touba xàmmewul woon ak dërëm akub xandeer mooy ki nga xam ne da daan dox di sol mbubb mu amuli poos waaw kon sëñ Touba faalewul xaalis liñ am ëpp nay milliards kay xolli fële laaj ba ak kay indi lu dul jeex fii man ñoom ñoo yem képp ci man pës téef bi am solo te ñoo yem képp ci sëñ tuubaa nañ ànd liggéeyal sëñ tuubaa sëñ Touba liggéeyal ko gën def lu dul lool sëñ tuubaa da daan toog ba ca yàgg mu jóg di toggal boppam mbir di defal boppam mbir ndax mankat yàlla damaa xamal ne ku ma liggéey jariñu ma bëgg a liggéeyal sama bopp ndax ma jariñu kon nañ liggéeyal sëñ Touba nañ jàpp ci sëñ Touba nañ muslu ci saytaane nañ ko def ak pëstéef te luñ ci def ñu bañ ñu xeeb ko xam ne lu fi nit def tey am na ku ci def lu ko ëpp loo fi def ci lool ci mbirum sëñ Touba mi am na ku ci def lu ko ëpp loo ci xeeb it xamul rek ndax koo xam ni boo ko fayee ker boo ko liggéeyalee kër mu fayal la guddi kon booy wëri banque demal ci kooku foofu mooy dépôt bu baax bi nañ liggéeyal sëñ Touba ñi ngi leen di sant di leen gërëm nañ leen ko ànd ci jàmm nañ leen ko ànd ci pëstéef nañ ko ànd ci taalibe nañ ko ànd ci toppente parce que ñun amuñu lu ñuy jéggi feneen lépp lu ñuy wut sëñ Touba ak maam Cheikh Ibra Fall woon nañu ko donc ñun ñii ñëpp ay milliardaires lañ ci àdduna si ñun ñëpp dañoo war di defare maanaam taalibe li sëñ sëñ Muntaxa wax bu yàggul ci ñun Baye Fall ñun de gëm nañ ko ndax dane baay Fall bu dëggu ci Cheikh ra waaw yaa ma gënal sama bopp ñun sëñ sëñ sëñ sëñ euh, euh, nuñ koy waxee ci sëñ Mor Mbay Cissé moo ñu ne maanaam ab mburit ku ñuy ba ku nuñ koy waxee ci ana borom xese yi ku ñuy jéggal la Baye ku ñu jéggal la ba pare ñun de waat nañ ne ci juróom-ñaari maam Cheikh Ibra Fall luñ ci ñaan yàlla mu defal ñu ko waaw kon nag ñaan nañ ci barkeb maam Cheikh Ibra Fall képp ku fi teew tey lépp loo fi indi ci looyu loo loo xam ne mi ngi jax-jaxal sab xol fos ko ci ñaan nañ ci maam Cheikh Ibra loolu antu te barke maam Cheikh Ibra boo ko ci fasee te muy dëgg ci yow waat nañ ci maam Cheikh Ceebra Faal ne dina am kon yàlla nañu maam yàlla nañu yàlla defal lépp ci guddi tey gi lu ci waay defoon na ko xeeb waaw yàlla nañu yàlla defal lépp fos leen ko yéen ñëpp waaw ñii nga xam ne ñoo ko tàmbali nag muy suma soxna sii ak ñi ko fekk si ñu ngi leen di ñaanal ñu gën a jàpp lii ndax lu gën lii amu fi lu gën lii amu fi puukare mu gën lii tëgg mu gën lii si kër su gën lii lu gën lii amu fi nañ liggéeyal sëñ Touba nañ toilettul sëñ Touba ba àjjana ñu toog nii rijaal taxaw ca kanam di dugal ah buñ toogee fii man nañ fee fanaan ndax li ñu yor dafa neex li ñu ñor dafa dafa dafa seral xol waaw waaw waaw ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ak sa soxna si ñoo bëgg fàllu ba luñ ci góobe mokk ko soxna see ko tàmbalee noonu nañ ko tëje noonu jërëjëfe sëñ fàllu jaaraama maam Cheikh Rafaal yàlla ñu fi teewoon ay déwén yu bari yàlla bu kenn manqué barke si turam ku yor bakkan war nga ni jaar